Serigne Ndiaye ngi dem ak moom latéralement waaye Libidor taxawul. Libidor taxawul dagaat na léew too buur. dagaat na ko Fatim dagaat na léew too lu tax dañuy indi ci digg géew bi balaa combat bi di am di am ay litige Fatim. waa Libidor la buur. Libidor la Libidor moo taxaw. mais nag taxaw Fatim. ah Serigne Ndiaye cokkaas na. bi door jàppante la bëgg. waaw ndeysaan dégg nga pàcceer. nee na li bi door du taxaw bëre bi lay wut. jàppante bi lay wut. woo leen ci digg géew bi pàcceer wax na dëgg. mu jeex. ngi lewtoo ñoom ñaar Fatim. mais buur ndeysaan bu làmb tolloo fii. géwal yi tëgg ak yi way rek ngay dégg. mais Serigne Cokaas ak ñun reporter yi waa Serigne Cokaas na léegi. Libidor bëggul taxaw. Libidor bëggul taxaw waaye yàgg-yàgg dem na. Ah, door bi du dëgg ci moom moom Libidor. Libidor dem na songu la Libidor door na. door nañ ko mu daanu. lan laa la Serigne Ndiaye door na Libidor Fatim. lan laa la door na ko mu daanu. ñëwoon naa la Libidor. xale beeg ci yoon.